الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد هادي الأمين وعلى آله وصحبه صبر الدوان والتمكين ورضي الله عن شيخنا وصيلتنا ورجائنا محمد الأمين مبكي mbokk yi ñuy teewlu di ñuy déglu di ñuy seetaan comme niñ ko baaxoo daan defee rek ñoo ngi fii ci Touba 28 ci seen studio Al Azhar Touba point com comme niñ ko baaxoo daan teewee jamono yu toll bu xew-xew jubsee ñu dajale mbokk ya nga xam ne ñoo xewle xew-xew boobu ngir ñu waxtaan ca lañ xewle mu mel ni tey jii ñu ngi fi teew ak waa guy mbind ndaxte kenn ku ne xam ne ne màggalu Mbàkke Kajoor jub si na di tombeek la 30 mars bii ñu dëgmal muy bisub dimaas ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax a baax nag mel ne ci biir wàccaay woowu ñu nekk moo tax ñu ngi feggu suñu mbokk Serigne Salih Bousso ak sëriñ Abdul Karim Mbacke ak sëriñ Ahmadou jëng Serigne Abdul Karim Mbacke di doomi sëriñ xaadim Mbàkke moom Serigne Modou Baara moom sëriñ Baara li waral jataay bii nag mooy waxtaane li nga xam ne mooy sababu mbakke Kajoor ak sëriñ Baara ak Mbàkke Kajoor ak taalibe ak Mbàkke Kajoor ak ndigal li nga xam ne tamit moo nekk ci ñu màggal Mbàkke Kajoor ginnaaw ba loolu jàllee mbokk yi dañ leen suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo teew fii ngir ñu présenté kenn ku ci nekk wax fi nga jugee donte jiwaay benn la muy guimind présenté sa bopp ngir ñu xam la bu ko defee ñu dugg mu baax saratan ci waxtaan wi xamle bu baax lan moo waral Mbàkke Kajoor aoudu billahi samii alalim min alsheytaani almatruudi rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alwaxidi al ahad alfardi samad alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaciinuhu ala ma ancamana bihi min altawxidi waltasdiqi bi rasuli lwaxid sayidina wa mawlana muhammadi alfarid alayhi wa ala alihi azka salaamay llahi alhamid nuxayikum bi taxiyati alislaamiya wa nashkurukum fi hadihi aljilsa almubaarak wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi tedd yi mbokk yi teew mbokk yi teewlu ñu leen di nuyu yow warmaal ak màggal waaye di jiital ci nu boobu ak màggal boobu ak ziyaar boobu ki ñu ci war a jiital mooy Cheikh Sidil Mokhtar di ko ñaan yàlla yàlla kàttanal ko mënal ko li mu am yéene liggéeyal Cheikh Ahmad Bamba ñu ànd ko moom mun naa leen naal ñu ànd ko moom mun naa leen naal ñu ànd ko moom te kenn bañ a manqué yàlla mën na ko te yàlla na ko def bi ahsanil wujuh wa ma dalika alallaahi mbokk yi kon ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane Serigne Bara kon dañ doon nuyoo rek ñu jox Serigne Abdou Karim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 wa aalihi wa saxbihi wa sallama taslima awnaka yaa muin wa bika nastain alhamdulilahi rabil alamin arrahmani arrahimi maliki yowmi ddin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastainu ihdina siraata almustaqima siraata allazina anamta alayhim gayri almaqdubi alayhim wala ddaalin rabbi srih li am rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki àdduna bi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk tey dégg suñu kàddu nuyoo bu sàll nuyoo bu lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo boobu saaxibul fadila seyxu naas yaxshidi al muxtaar di ñaan saa mu guddal aw fanam ba naal naal ci toolub Serigne Touba bi mu àggale ko te naal yeneen i naal ñu fekk ko di ko naa di ko ñaanal suñu jëwrin ci kër Serigne Bara Serigne Modou Bara moom Serigne Khadim Modou Bara di fàttali mbokk yi ne ñoo ngi fi teewee ci turu daaira safinatul amaan bi lëkkale setaati Serigne Bara yi ñun ñii ngeen jàkkaarloo ñuy wax a yéen. di kordinateur ci kuréel googu fas yéene ñëw am ay tomb ñu fi waxtaane ngir lenn lu jëm ci wàccaayu màggal gi ak taxawaayu daaira bi ci biir màggal gi wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Saleh jërëjëf Serigne Abdoul Karim Mbacké jërëjëf Serigne Ahmad Dieng présentation bi leer na lool ci xanaa ci teewaayu comme li mu wax rek mooy daaira Safinatul Amaan bi nga xam ne moo lëkkale setaati Serigne Baare yi ñoom ñoo ñoom ñoom ñi ñoo nga xam ne ñoo leen teewal fii comme ngeen ñu njëkkante waxtu bi rek dañuy dugg ci question bu njëkk bi Serigne Saleh muy sababu sosug Mbacke Kajoor maanaam lan moo waral ñu sos Mbacke Kajoor. jërëjëf Serigne Touba barke Serigne Touba cey Serigne Touba est-ce que Serigne Touba waaw mbokk mi Serigne Moussa Seye laaj nga laaj bu am solo bu ma yàkkamti tontu la si. muy lu am njëriñ lool niiwaa na ñu koy laaj te mooy mooy te mooy li waral ñuy woote li ñuy woote laaj nga ñu lan moo waral sosug Mbàkke Kajoor bala maa ñëw ci Mbàkke Kajoor damay ñëw ci lan moo waral sosug Mbàkke nga xam ne dañ daa tudde Mbàkke boo demee Kajoor di nga gis Mbàkke ñu naan Mbàkke Kajoor boo demee Bawol di fa gis Mbàkke ñu naan Mbàkke Bawol boo demee Jolof di nga fa gis Mbàkke ñu naan Mbàkke Jolof Mbàkke Bawol maamu xaram moo ko sanc maamu xaram moo sanc Mbàkke Bawol ci benn buur bu ko mayoon foofu suuf mu tudd Amari Ngoone Ndeela moo ko mayoon suuf soosu Mbàkke bawol ci biir Mbàkke bawol bari na mbakke yi fi nekk ak li ni jigéen mbakke bawol lépp ñu bari ci ñun xamuñu lan mooy Mbàkke bawol ci biir Mbàkke bawol gi nga xam moo moo taxaloo Tuuba am na Mbàkke gu naan Mbàkke am na Mbàkke gu naan Mbàkke dimb am na Mbàkke gu naan Mbàkke mbépp xam ngeen laa lay mbépp moom moo fa nekkoon ñu ko tudde Mbàkke dimbut laa lay dimb dimb moo fa nekkoon moo tax ñu ko naan Mbàkke dimb am na fu naan Mbàkke Bari am na fu naan fu naan Mbàkke Kër Sayar am na fu naan Mbàkke Bawol xam ne juróom-benn Mbàkke mën nga gis si biir Mbàkke Bawol muy lu yéeme ci Mbàkke gi nekk ci biir Bawol ci biir taqaloo ak Tuubaa ci ñu bari ràññeewu ko loolu moo waral ñu koy sos ñoom jëm Mbàkke Mbàkke moo tax ñu koy dàkkantale mbakke Bawol Mbàkke gi nekk Bawol yéen Mbàkke gi nekk Joloxat noonu la demee googu moom sëriñ bi ko sëriñ bi am na fa juróom-benn weer bi mu ko moo ne mun na mu am nañu naan ko Mbacke Sagnang wala Mbacke Sagnang ak quartier sa biir moom Mbacke euh, Jolof mi ngi nekk ci wetu wetu bustaan ci Jolof ci bustaan mooy kër Sëñ Abdou Khadir ga fa nekk bustaan Mbacke Jolof Mbacke Sagnang googu bustaan la dendal ñu doog ñëw ci Mbacke Kajoor wax naan Mbacke Jolof wax naan Mbacke Bawol ñëw ci Mbacke Kajoor Mbacke Kajoor moom tam li ko waral loolu la ndax Maam Mor ak Lat dafa amoon alaaqa bu dox seen diggante mooy relation mu koy atteel ci mbir yi atte ginnaaw buur la te it lu xew moom amul wala bu ko jot gi moom mu koy atteel te it Maam Mor Anta woon bokk ak Lat Joor benn dëkk nekk ndax dafa yor ay donga day jàngale day yare te loolu mënta nekk ci dëkk boo xamante ni ab buur dafaa nekk ndax xam ngeen ni buur yàqam moo ëpp njariñam ci loolu bi laat Joor sancee Ñoora ci la sancal Maamoor Anta Sali Poroxaan mu féete woon Poroxaan di fa jàngale ba wax na ni Sëriñ Tuubaa bi bi mu jógee Poroxaan mi ngi amoon juróom-ñaari at toloon yastabshirun bi mu sancee pataar moom Lat Joor boobu la sancal Mamor Anta Sali fu naan kër Amar Yàlla mu nekk fi Njaamur mu nekk fa ngir dend gu mu bëgg a dend buur bi ngir mën a jàngale comme nañu ko waxoon rek man yor daara ja man kaa doxal man ko war a doxale ci noonu lan continuer Njaambur ak euh, Kajoor xam na ni sorewun boo demee ci boori Cilmaxa ci deqali bi Lat Joor sancee deqali ci la sancal Amar Anta bi Lat Joor sancee deqali ci la sancal Amar Anta Sali Mbàkke Kajoor deqali boo àggee ci biir dëkk ba fa denc Amar Anta Sali boo demee xawkaat den tuuti ci àll ba am na ñaan am ñu koy deqal sax naan ñaari deqali la boo demee ba sa àll ba eh, ko takk si dara waaye bu sorewun man ma nga dox ci ay nit moom fa ko jëlee boo fa àggee fa denc moom Lat Joor am ñu ñaan ñi faral leen denc mu sancal ko Mbàkke Kajoor ngir mu nekk fa di jàngale di jaamu yàlla na mu war a jaam yi na na mu ko waree te du gis lu ko yàqal bu gisee lu mu mu àtteel ko ko mu àtteel ko ko ci loolu ci la sance Mbàkke Kajoor mu Maamor Anta Sali am na ak wuute nag ndax ñii nee nan 1880 lan sàcc Mbàkke Kajoor waaye danoo wax ni 1881 la Mamor Anta Sali liggéey te ñetti at la fa am kon moo tax ñu jàpp ni 1979 la sanc Mbàkke Kajoor faat daal di wuy ji boromam 1881 mu Mamor Anta Sali moo ko sanc ba ko sanceet fa la nekk di jàngale Cheikh Ahmadou Bamba it moom tam fa la nekkoon di jàngale di yare nekk ca biir daara ja di taalifi teere ba ñu bari ci ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon ngir sàkku xam-xam ci Mamor Anta Sali ànd ko di ko sàkkoondoo ak sëriñ Tuubaa sëriñ bi dem na ba di leen jàngal ba mujj gi ñoom sëriñ bi jàngal leen sëriñ Tuubaa jàngal leen moo moo leen gënal wooy juróom wa jàngal leen ngir sëriñ bi fasaaxa amoon ak barke bu xam-xamam am ba ku jàngee ci moom ban xam ko loolu sëriñ Tuubaa naan ci nax ju saxaaba yi danoo ñam àllaaxira mu neex lool ba nga xamante ne adduna safatu leen dara loolu moo taxoon ñu fase adduna takk àllaaxira waaye it gaa yooyee danoo ñamoon njàngaleem Sëriñ Tuubaa mu neex lool njàngaleem keneen kon mën a ñam leen saf dara mu jug ñu bàyyi jàng ci keneen ku dul Sëriñ Tuubaa di eh, jàng Sëriñ Tuubaa ba sëriñ bi bi ñu ko waxee mooy 79 1979 wax na ni si la maam sali waat liggéey ci la jàngale ay weer xaw a takk tuuti ci la woote woote bu si boobee ci Mbàkke fekkee nan la fa sëriñ Baara ñëwee it sëriñ Baara bi muy ñëw Mbàkke Kajoor sabab bi mooy Mamour Anta Sali wax na ni ñetti at la am Mbàkke Kajoor bi mu sëriñ bi am na fa ay weer walla at di jàngale ginnaaw bi sëriñ bi wootee woote bu si boobu tukki na ay tukki yu bari fa la demee waat Mbàkke Bawol gëm jóge woon boobu ki fa desoon nekkoon fa mooy rakki Mahmoud Anta ñu koy woowee sëñ Mbàkke Kajoor di ko dàkkantale ak Kajoor Mbàkke Kajoor moo ba nii bu àggee Mbàkke Kajoor ñu ngi koy naan ñaari Mbàkke Mbàkke gu mag ak Mbàkke gu ndaw Mbàkke gu mag mooy ga dañ jublu mooy Mbàkke ga nga xamante ni fa la Anta Sali yee féete muy rakki sëriñ bi mel ni sëñ Mbàkke Kajoor mm, wajur la sëñ bi wajur la sëñ bi sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke Kajoor ndax mu Maamadu Anta Sali ñoo bokk rakkam la sëñ Mbàkke Kajoor moo fa nekk ba léegi ak njabootam ñoo fa ñoo ñoo nekk Mbàkke googa ak Mbàkke gi nga xamante ni sëriñ Baara moo fa nekk li waral sëriñ Baara ñëw fa mooy doomi sëñ Amar doomi sëñ Mbàkke Kajoor moom woon sëñ Mbàkke Kajoor moom nga xamante ni mooy rakki Maamadu Anta Sali amoon na doom ju ni wax sëñ Amar Fall Mbacke sëñ Amar Fall Mbacke moom la sëñ Baara joxoon la sëñ tubaa joxoon sëñ Baara sëñ Baara féete ci këram suñ Baara féete ci këram ba mu fa féete it wax na ko sax ni bu mu fa wut kër ba tax na bi ñu demee ba sëñ Amar fas yéene nga wutal kër foofa daa xaw a dànn dëkk ba ba tax na lool moo tax différence. am fa nga xam ne biir Mbàkke Galle moom suñu baara am mooy Mbàkke ga fee ñu koy màggale te mooy a siiw xam euh, lool it euh, gi ci Mbàkke it ci kañ la sëñ Mudu Baara mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Baara moo ko njëkk a wut ci kaw suuf doxal liggéey bi moom itam nu kawe njort ñu àndoon ak moom te moo ñu yaakaaroon sëriñ Baara mi ngi ko daa defee tay sur mu nekkoon benn fan ci weeru tabaski suñu Baara daa ànd ak suñu Abdou Aziz di ko màggal ba nin ko toxalee euh, tay sur yóbbu ko Mbàkke Kajoor ci atum junni 1910 1910 ci ci lan sose màggal gi yëpp doxale ko Taysiir yóbbu ko Mbàkke Kajoor ba ci sëñ Abdu Asiis ñëwee noonu la ko bàyyee noonu suñu Sidi Muxtaar it ñëwee noonu la ko bàyyee noonu ñu continuer ko noonu di ànd ko ak mbokk yi mbokk yi loolu mooy lin mënoon a leeral ci Mbàkke Kajoor mm-hmm. ah, ci sos sos giñ ko sos ak nan lan ko sose waaye it fekkee it ah, ba tey ci lan moo waral ñu sos ko wax nan ki sos ak nan la ko sose waaye waxuñu lan lan moo waral ñu sos sos ko li giñ ko sos la taxoon mu sos ko sax wax na ko ndax du lenn lu dul jàngale gam bëggoon a jàngale ak yare gam bëggoon a yare te bala mu ko mën a def daa sori buur ba kon mën nañ ko sax leeral nañ ko loolu moo tax ñu sos ko ngir jàngale ak jëfe ndax sëriñ bi bi muy woote woote bu siiw boobee xam-xam bari nee na woon gàññ waaye nit ñi dañ ko daa jàng ngir di ko puukarante ngir di laajante ngir di wan ni kii maa ko ba xam-xam feel toll di jàng ngir rawante waaye sëriñ bi da doon woote ngir jëfe ba sax gis koo xamante ni dafa ma ci mag mag yi sëriñ bi du xàmmee baa ak alif waaye day àgg ci yàlla la waral loola mooy day jeexal téere yëpp te du ci yër benn jeexal téere yëpp te ci yër benn lay loola mooy lépp loo gis ci téere yi muy teggin muy jikko ji rafet muy xam-xam muy dundal guddi muy jaamu yàlla di wéetal ko loolu lépp mag ñooñu dañ kaa jikko woo woon nga xam ne dañ nekk sa téere yi ñoom dañ kaa jikko woo ñii jàng nag dañ ko daa jàng waaye ñooñu dañ kaa jikko woo suñu tubaab bëggoon nag njëkk woo loolu moo tax moo taxoon mu woote mu mu woote woon woote boobu loolu moo waraloon ñu sas Mbàkke Kajoor ngir dundal fa waa kon mbokk ñu ngi leen bàyyiwaat ak euh, mbokk yi jotaay bi ba si kanam ñu fan mën a agsiwaat ñu àndaat ak ñoom. jërëjëf Serigne Saleh tontu bi leer na lool mu mel ne tàqaleel nga ñu li ñu soxla woon wax nga ñu tamit sababu Mbàkke Kajoor ak li tax ñu sos Mbàkke Kajoor ak ku sos Mbàkke Kajoor. nga commencé ci Lat Joor ba mu àndeek sëriñ Mamar Anta Sali ca atte yam ko daan atteel ba ni yoree daara ja ba ni fa jugee ba ni sancaatee ba ni sancaatee Mbàkke Kajoor gu mujj gi mooy gi nga xam ne moom lañuy ñuy màggalale sëriñ Baara mu mel ne Mamar Anta tamit kon xam nañ ne ku fonkonum jàngale la ndax te kenn kon ne xam ne ne ab buur bokk ak moom benn dëkkuwaay jaxasoo bu bare rek dong nga yem mën nañoo fo wala ñu def defi leneen loo xam ne santoo leen ko leeral nga tamit tàqale nga mbàkke kajoor yi teel tàqale nga mbàkke yi muy mbàkke bawal mbàkke kajoor mbàkke dimb façon mbàkke yépp leeral nga ko leeral nga tamit sëriñ baara kañ la fa dem ci foofu mu jaar fépp ba dem fa ba loolu nga mujjee wax ci ba ko sëriñ bi di joxe ne ko bu mu fi am kër tax ba mu koy sancal mu xaw a génn dëkk ba tuuti looloo waral sepp wuuteeg mbàkke kajoor gu njëkk ga ak mbàkke kajoor gu mujj gi loolu lépp wax dëgg yàlla leer na lool noonu lañ ko bëggee woon mu mel ne tamit eh, mbàkke kajoor kenn ku ne xam na ne am na cosaan ndaxte suñ waxee mbàkke kajoor rek sax xel dana dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall ne tamit fala la jébbaloo ci mbàkke kajoor tamit bi Serigne Baara feeñee jamono ci la maam Cheikh Ibrahima Fall tamit daal di la ko sëriñ bi wàccee mu dellu ca yitte kon mu mel ne mbokk yi liñ sàkkoon lépp leer na xam naa comme que waxtu wi la ci des bariwut dañuy daal di dem rek service commercial jëli publi ay publicité te ñëw. allo. si maam Diarra. maam Diarra dafa doom. crédit bi da jeex na. Mouhamadou Lamine sama papa dafa ma woo léegi crédit dem dagg. des desuloo foofu carte. waaw Souleymane xanaa xamoo Kool Touba. Kool Touba. toogal la. Kool Touba. site internet la boo xam ne nii foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex. sa baay boobu la doon woo léegi mu dagg mën nga koo jëndal crédit léegi mu jot ko ci portable. ah bon bien sûr maam jaara moom mën nga ko jëndal. mën nga jëndal crédit say am di jàmm say xarit te rax ci dolli boo nekkee fii ci États-Unis wala nga nekk Canada non seulement da mën a jëndal keneen mais di nga mën a jëndal sa bopp et en toute sécurité. damaa tàmbalee wax rek. Uh-huh. ne ko euh, maam Diarra am na am na gone. wax nga ko am naa doom rek yàlla baax na. wax naa ko ko. Uh. waaw waaye kër gi jeex mu dagg. waaye jot naa ko wax moom ne ko am nga doom. ah man de jot naa crédit. am nga crédit. bu bari sax. Ah, jógee ci service bu ñuy wax Pôle Touba. woo woo ko yeggale ko wax ko doom ji na ko doom ji góor yi. kon maa ko ci woo léegi. waaw waaw waaw woo ko ci nga leeral ko. waaw. ah maam. waaw. dikkal ah, lu mu doon. ah yow it demee message bi lañ la envoyé. muy la gis bu ñuy wax Kool am nga crédit. am naa crédit ne. kon dañoo bokk ñu ko envoyé kon. ah, ah na fi mën nañoo jàll ci sëriñ Abdou Karim Mbacke mi nga xam ne moo jiite mbooloo muy fi daje muy Safinatul Aman di daayira seetaati Serigne Baare laaj bu njëkk bi tamit sëriñ bi mooy Mbacke Kajoor màggal gi maanaam màggaloog Mbacke Kajoor ak waa sëriñ Serigne Baare maanaam fan la màggal gi ku ko njëkk a màggal. ak ndigal la fa mu jógee ba ni yegsee ci Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke bañ koy màggalee Mbacke Kajoor ak Mbacke Kajoor dimmi màggal gi fu ñu ko njëkk a defee. Hmm, barakallahu fika Sëñ Moussa comme ni nga ko laajee am na solo lool ci taarix mbir mu ne ñu xam dayo ba fa mu jógee ak lan moo ko dundal ba mu toll nii. Sëriñ Baara bi mu fi jógee 36. taawam bu baax bu sell boobu fees dal di Serigne Modou Bara wuutu ko toogub jataayam uuf njabootuk Cheikh Mouhamadul Amin eh, ci xam-xamam ak xel mu rafetam eh, muy fàttaliku way waajuram woowa di Serigne Bara eh, daan ko defee dëkk bu ñuy wax Taysirul Azir Taysir googu yaakaar naa dinañ ci taxaw tuuti am luñ ci leeral ndax buñ nee Serigne baara mi ngi woon Mbàkke Kajoor ba la fa xew yëpp xewe fa ku ko njëkk a di ko màggale tey jir kon loolu dana am ak euh, settantal tuuti dëkk boobu di tey jir Serigne Modou Bara Serigne Bara moo ko joxoon ndigal ci sanc gi mu moom sëñ Modou Bara dëkkoon Taysiir léppam nekkoon Taysiir moo tax it bi mu doon fàttaliku Serigne baara moom ci ay jamonoom Taysiir la ko doon fàttalikoo moom mi ngi toog toogaayub sëriñ baara eh, ja waxtu ba mu fi jóge muy 36 ba 52 ci jamono boobu itam ñi doon coordonné màggal gi bokk na ci ku mel ne Serigne Bàcce Ka di rakk ci Serigne Modou Bara nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk way jur wu jigéen bi fi sëriñ Modou Bara bàyyi ko itam rakkam ju baax ja Cheikh Abdoul Aziz baara itam eh, yenu liggéey bi itam. di ko def ni nga xamante ni si noonu la ko magam ju baax jooju daan defee di Serigne Modou Bara moom itam màggal na ko ci 1952 ba 90 jamono bi mu fi nekkee itam di màggal màggalu Mbàkke Kajoor moom Serigne Abdoul Aziz ak la ko jiitu Serigne Modou Bara ñoom ñi ngi ko daan màggal benn fanub tabaski moom lañ daan màggal màggalu Mbàkke Kajoor muy bi fi Serigne Bara jógee di ko fàttaliku mu mel ne niñ baaxoo xam mooy defal ko ay ñaan ak euh, mbokk yi daje fàttalente li nga xamante ne ci moo war ci euh, diggante bi. Sëñ Abdul Aziz jamono bi mu ko yore itam dafa décentralisé woon lépp ndax moom itam ci oyafam ak lewetam ak bari xam am feesam dell ak bëggoon njaboot gi ak bennale gum leen bennale woon moo tax da daan jël ñi nga xamante ne ci maanaam dun ay rakk ci moom waaye ay doom lañ ci moom. di taawub sëñ Modou Bara di ku mel ne sëñ Xaadi Modou Bara ak taawam bu baax ba di sëriñ Moustapha Abdoul Aziz nga xam ne jamono bu màggal gi musaana jub si ku mel ne sëñ Xaadim donte ne doom la ci ñoom waaye da koy jël sar jox ko charge chargé woo ko mboolem li nga xamante maanaam moo jëm ci wàllu yëgle beeg toppatoo nit ñi ak yooyu nga xam ne maanaam am na nu ñu daan def sax nga xam ne maanaam da daan dundal mbokk gi di dundal Mbàkke Kajoor nga xam ne maanaam bu buñ ne bisub tey bu dellusee la ñuy amal màggalug Mbàkke Kajoor nga xam ne dañoo joxoon ku mel ne sëñ Xaadim Moodu Baara ndigal nga xam ne maanaam bépp koo xamee njaboot nga ci njabootuk sëñ Baara boo ñëw maanaam dañuy am ay daan yu ñu la teg nga xam ne loolu maanaam oyof gum oyofoon ak décentralisme moo taxoon mu jox ko ko mu nekkoon doomam itam ku ci mel ne taawam ba Serigne Moustapha Abdoul Aziz moom itam jamono bi nga xamante Serigne Abdou si nekk na fi moom itam doon na coordonné màggal gi moom itam doon ko doxal doxal bu sell bu rafet moom it ba ni mu fi jógee itam ci la suñu jëwrin ji Cheikh Sidi Muxtaar moom itam jël màggal gi moom itam bi mu ko tàmbalee màggal diir bu gàtt ci la ko Serigne Saliou Mbacké yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram daal di koy jox ndigal ci na indi bisu màggal gi ca bis bi nga xamante ni si moom la Serigne Bara gane woon jamono te itam xew-xew bu rëy bépp xewoon fa ak euh, ya nga xamante ni moom moo fa amoon ci ay yiw ak ay may mu bëgg ñi nga xamante ne si maanaam fekki wu woon jamono jooju te nekk murite jamono ji mën a jam mën a jariñu ca loola mhm. moo taxoon Serigne Saliou joxe woon digal ñuy màggal bis bi nga xamante ne ci maanaam mooy ganek jamono Serigne Bara Serigne Sidi Muxtaar moom it bi mu ko yore di ko màggal noonu itam nga xam ne am na ci loo xamante ne si faww njaboot gi ñoo ko ciy jàppale mu jël jëlul doomi boppam waaye dafa jël ku mel ne doomi rakkam di Serigne Bassirou Khoudia itam mu jox ko doomi boppam ku ñu wax Serigne Cheikh coro ba jamono ji ñu toll nii moom mooy coordonné màggal gi mbooleem li rafet li nga xamante ne ci maanaam mooy xew ci màggal gi lu lépp mi ngi ame ci pastefa moom ak bëgg gu mbëgg kër Cheikh Mouhamadou Lamine ak liggéey boo xamante ne ci yéene na ko liggéey ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine ba nga xam ne jamono ji moom mooy coordonnateur u màggal gi bi nga xamee ne itam moom itam ci bëggam lu baaxam ak décentralisé moom itam kuréel gi soosu di Safinatoul Aman di setaat Serigne Bara nga xam ne ñoom bi ñu soosoo yàggul ñu ngi soosu 10 octobre 2012 ñoom itam mais nekk ay xale yoo xamante ni si am nañ pëteef te bëgg nañ liggéeyal seen maam moom itam mu jëlaat ne leen lépp loo xamante ni si ay warteef la ci yoo xamante ni si man daan naa ko dinaa ko décentraliser jox leen ko yéen it ngeen ci seen wàll ndax mbir mi moom ma ko ñun ñëpp ñoo ko bokk kon màggal gi daal cib tënk ak gañe waxtu wi maanaam lii mooy tënk bi nga xamante ne si maanaam moo dale ci Serigne Modou Bara ba kii fi yàlla teg tey di Cheikh Sidel Moukhtar ñu ñaan suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam jërëjëf Serigne Karim Mbacke tontu bi leer na ci màggalu Mbacke Kajoor xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke yi nga xam ne ñoo ko màggal mu mel ne ci sa biir wax sëriñ Modou Bara Mbacke mi nga xam ne moo njëkk toog ci waa kër Cheikh Amin nekkal ko fi xalifa moom moo njëkk a màggal màggalu Mbacke Kajoor mi ngi ko màggalee tey Chirlou Achir nga xam ne mooy ab dëkkam bu mu nekk ginnaaw ba tamit sëriñ Abdoul Aziz Bara Mbacke tamit màggal na ko ba ni mu fi jugee Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke màggal ko ba nim ko jotee ndigal ci Serigne Salih Mbacke ngir mu toxalee ko foofa yóbbu ko fële mooy nga xam ne mooy dëkkub sëriñ Baara mooy Mbacke Kajoor na ne laaj yooyu leer na lool wax dëgg yàlla ndaxte su ma juumut màggalu Mbacke Kajoor maanaam yàgg nañ ko màggal ndax bu fekkee ne ba fi Serigne Modou Baara toogee 36 la ko commencé ba jamono yi ñu mel nit ñi ñu baree bari yëg nañ ko bu yàgg-yàgg sax waaye niñ ci yeewoo léegi ñu baree bari kon jàppoon nañ ne Mbàkke Kajoor ba mu ko bañ ko commencé màggal yàgguñ ñu baree bari waaye nañ xam bu baax ne Mbàkke Kajoor bañ ko commencé yàgg nañ ñu ngi ko commencé njëkk ki nga xam ne moo njëkk a toog ci xalifab Serigne Baara di Serigne Modou Baara Mbàkke mu commencé ko 36 ba jamono ñu toll Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Baara Mbàkke nekkaat fi tamit xalifab Cheikh Ahmadou Bamba di ko continuer di wéy di ko màggal na xam ne noonu la amee dara soppeeku ca dañ ko gën a yaatal rek mu mel ne mbokk yi comme que waxtu wi la ci des bëriwut dañuy jox sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekk ñu tàggoo rek bu ko defee xam naa incha allah du ñàkk yeneen jataay buñ ko amalaatee dinañ gën a leeral tamit sëriñ baara akum njàngam sëriñ baara akum mbindam lu baree ba daal dana ci ñëw incha allahu rabbi bu ko defee dañuy jox sëriñ Saleh bu tàggoo pare ñu jox sëriñ Abdul Karim Mbàkke ñu daal di tënk rek ba beneen yoon incha allah. sëriñ Abdul Karim ci leeral yi. jërëjëf Serigne Moussa Seye ci laaj yi am solo yooyu nga ñu laaj muy laaj yu am maanaa ndax nit dina laaj ngir nit ñi jariñu ndax boo xoolee li ñu wax waxuñu ko ngir wax ko muy li ñu wax muy wax joo xam ne day dugg ci nobbee génn ci nobbee waaye dañ koy wax ngir jariñu mm. boo demee ci njëlbeenu saaru Yusuf yàlla nga naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nahnu naqussu alayka ahsanal qasas dina la nett li gën ngaa rafet xisa abu xale ba sa mujj gam aay ba mujj ma ngi naan ko inna fi daalika la ndax ñi nga xamante ne ñooy borom xel yi dinañ ca mari jariñu fa'tabiru yaa ulil absar afalaa yadabbaruna la am ala qulubin aqfaluha mbokk yi kon loolu lépp buñ koy wax ak mbokk mi war a àndal ci kanam mu Sëriñ Ahmed Dieng bu ñëwee dina leeral ci sëñ baara kon mbokk yi foofu la ñuy tëjee bi ci tënk ngir waxtu gàtt waaye jëmm ji ñu waxtaane ak dëkk bi ñu waxtaane mën nañ jëm fii ba ilaamaa la neexee wala du tax ñu jeexal ko kon ñu ngi sant bu baax eh, Cheikh Chidi Mokhtar waaye di sant it kilifa gi nga xamante ni moo jiite liggéey bi eh, te mooy Serigne Cheikh Thioro mi yor kàddoom yor liggéey bi ñu ànd ko ak moom it eh, ak mbooleem ñu ne bokkal sëriñ baara muy sët sëriñ baara waaye it ak Cheikh mi xam moo jiite bi waaye di sama sëriñ sama nijaay sama lépp muy Cheikh Mahamadou Amin mu sëriñ Basiru Xujja di ko ñaan yàlla mu yàgg fi te wér loolu di ñaanal sama wajur eh, soxna ami Dakar mu sëriñ Basiru Xujja mu sëriñ Basiru mu sëriñ Baara di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni yàlla ñu yàlla baaxee dégg ak topp ak jariñoo ci lépp yàlla ñu yàlla doon laat ay ati at ñuy sax di dayra dayra bi suñu lépp naat واغفر لنا وجمع كل العالمين ووالدينا يا إله العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله علينا وعليكم السلام ورحمة الله li nga leeral am na solo lool Canada nekk ci jamono jooy nga xam ne war nañoo indiwaat taarixu démb mooy mag ñi seeni jaar-jaar ak lan moo leen ñoroon ak lan moo nekkoon seen yitte mu mel ne buñ ci jàngatee ku mel ne sëñ Mor Anta Sali wàcc ci ku tedd ki Serigne Touba ñëw ba ci Cheikh Mouhamadul Amin ak ci xilaafa xalifaam yi nga xamante ne si ñoom itam kenn ku ci nekk liggéey bi jaar na ceew bu buñ ci jàngatee ba ak si fii dafay mel ne ñooñu ñëpp benn wàcc waay lañu amoon muy dundal xam-xam ak luy jariñ jaam ñi mu mel ni loolu nag lu baax di fàttaliku la ndax jamono da koo laaj euh, ndax liñ ci waroon a leeral lépp lépp sax xajul ci ay bés waxumalaak nag ay minutes yu ndaw a ndaw kon mbokk yi ñu xamee ne looloo waral tënk bu gàtt bi rek euh, itam ñun ñi fi teewit teewe wuñ fi ngir ëpp xam-xam teewuñ fi ngir mën a wax di wax waaye da di ndigal rek mhm. te itam yonente bi dane woon la tafalu say bi xayri ish loolu rek moom moo ñu fi teg ne sañuñu ko bañ kon ñu ngi jéggul lépp loo xamante ne ci rafet na ci mhm. ñu ngi koy ñaan yàlla defal ñu ko yiw te boole ñu ko ñun ñëpp mhm. te lépp loo xamante ni ci ab jamaj la ci ñu ngi koy jéggulu bu baax a baax suñu yéene mooy ñun ñëpp ñu ànd jariñu jariñu liggéeyu Serigne Touba bi wa axiru daxawaana an alhamdulillah wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf Serigne Saleh bu jërëjëf Serigne Abdul Karim Mbacke mu mel ne ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm liñ sàkkoon ci yéen wax dëgg yàlla gis nañ ci lépp ndaxte leeral ngeen lu baree bari ci loo xam ne ci sëriñ baara ci cosaan Mbacke Kajoor ak màggalu Mbacke Kajoor ak fañ ko commencé màggale mu mel ne lu lépp leeral ngeen ko ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax. di fàttali mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan tamit ci biir réew ak ci bitim réew ñii nii ñooy ñi nga xam ne ñooy safinatul amaan bi xam ne ñoo nekk guy mbind di seetaati Cheikh Mouhamadul Amin Baare yi ñu ñëwoon fii ci studio alasar touba point comme bi nekk ci touba 28 ngir wàccaayu màggalu Mbàkke Kajoor ci njiital Serigne Abdul Karim Mbàkke moom Serigne Xaadim moom Serigne Moodu Baara moom Serigne Baara mel ndax da yàlla daal ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax soo leen demee guy mbind ngeen jot suñu ab nuyoo ñun waa Azhar Touba point com ñu ngi nuyu sii di Mokhtar Mbacke bu baax a baax ak mbooleem ñi xam ñu nekk guy mbind soo leen demee ngeen jot suñu nuyoo boobu ñu ngi leen sant bu baax a baax baax kon dañuy yem ak yéen fii ci jataay bii ba beneen jataay incha allahu rabbi ci beneen émission ci beneen waxtaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu